أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخي الحبيب أختي المسلمة نقف وقفات مع وداع رمضان نسأل الله أن ينفعنا بها الوقفة الأولى ماذا استفدنا من الرمضان إخوة الإيمان ها نحن نودع الرمضان المبارك بنهاره الجميل ولياله الإطرة ها نحن نودع شهر القرآن والتقوى والصبر والجهاد والرحمة والمغفرة والإتق من النار يجب علينا أو يجب على كل واحد منا أن يسأل نفسه فماذا جنيت أو ماذا جنينا من ثماره اليانعة وذلاله الوافرة mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk yi ci yàlla war nañu taxaw ñetti taxawaay yi wala ñu seetlu ñetti seetlu ginnaaw jeexu weeru koor taxawaay bi njëkk wala seetlu bi njëkk mooy ab laaj bu képp ku nekkoon jullit yàlla xéewale la woon nga fekke weeru koor yàlla may la weer wi nga woor ko war ngaa laaj sa bopp laaj bi laaj bi mooy lan maa zastafattu min ar ramadan waaw man lan laa jëriñoo ci weeru koor ku nekk war nga ko laaj sa bopp ku nekk fi nga toog jàkkaarloog penku bi laajal sa bopp lan laa jëriñoo ci weeru koor ginnaaw ba ma wooree weer yu ba mu jeex lan laa ci jële soo gisee nit di tukki dañu jàpp ne bu tukkee am na lu mu fay jële bu dee nit day jàng dañu jàpp ne bu jàngee am na lu muy xam bu dee nit a ngi liggéey dañu jàpp ne bu weer deewee am na lu mu ci am ku woor ba koor jeex suñ la laajee weeru koor loo ci jëlee war ngaa tont ixwatal iman ha nahnu nuwaddi'u ramadan al mubarak tey mbokk yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëpp ñoo ngi tàggatoo ak weeru koor bi nahaarihil jamil ci ay bëccëgëm yu rafet wa layaalihil itra ak ay guddeem yu xeeñ weeru koor ay bëccëgëm dafa neexoon 24 heures sur 24 ngay contrôler sa bopp doo mooy yàlla yaa ngi contrôler nopp di contrôler bët di contrôler gémmiñ loxoog tànk geste yépp yaa ngi koy xool 24 heures sur 24 yaa ngi jéem a tegu ci siratal mustaqim moo taxoon bëccëg yi neex guddi gi bu jotee nga jëkkante jàkka yi naafila qiyaam jàng alquran zikr sujjoot jooy ñaan sa borom moo taxoon guddi yi nekkoon ay guddi yu xeeñ ixwaani ha nahnu nuwaddi'u shahr alquran wa taqwa ñoo ngi ni mbokk yi tàggatoog weer woo xam ne weeru quran la woon inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna anzalnaahu fi laylati alqadr weeru koor weer nekkoon weeru alquran foo tourné ci biir dëkk bi dégg rajo yeeg jàkka yi quran conférence waaye nekkoon weeru ragal yàlla ñépp soppeeku woon nañ nit ñi dañoo soppeeku woon ba soppi seeni yére ku nekk xattaa sax nit ñi dañoo soppeeku ba soppi seeni xetu gémmiñ koo gis mu ngi socc koo gis mu ngi jéem a baax koo gis mu ngi wax lu baax koo gis mu ngi tabe waaye nekkul woon rek weeru Qur'an ak weeru ragal yàlla waaye wa sabr wal jihaad nekkoon na weeru muñ mu ñoon nañ sunuy bànneexi bakkan poñe sunu bopp poñe sunu nos jéem koo teg ci raay bi yàlla ne nanu tegu waaye nekkoon na weeru muñ muñoon nañ lépp muñoon nañ mooy yàlla muñoon nañ jaamu yàlla waaye munoon nañ feebar yeeg jàngoro yeeg jafe-jafe yi ndax muñ ñett yooyu kese la muñ jaamu yàlla parce que dafa métti gis nga ñu ngi doon wóor di xeex ak seytaan waaye muñoon nañ jaamu yàlla parce que dafa métti bu guddee doo nelaw nga yow une heure du matin dem xiyaam nekk fa soo paree julli ji fajar jàng quraan liggéey sa liggéey tisbaar jot nga song jàkka yi julli toog tafsir ba tàkkusaan kon wax dëgg yàlla weeru muñ la woon nekkoon na weeru muñ waaye wal jihaad weeru koor weeru jihaad la woon jihaatoon nañ ak sunuy bakkan te jàppoon naa ne ñun ñëpp genn wàll gi ci ñun daanoon nañ sunu bakkan parce que jéemoon nañ defloo sunu bakkan li neex yàlla kon weeru jihaad la woon jihaadu nafs toñe bakkan bi def loo ko li yàlla bëgg di ko yee fajar yóbbu ko jàkk di ko julluloo waxtu juróom ci mosquée di ko jàngaloo Qur'an waaye di ko dégluloo li yàlla tabaraka wa taala bëgg moo tax weeru koor weeru jihaad la woon waaye nekkul woon rek weeru Qur'an mu jeex weeru taqwa mu jeex weeru sabr mu jeex weeru jihaad mu jeex waaye nekkoon na shahru rahma weeru yërmande koo gisoon ci nit ñi yàlla dimbali ko woon na mu ubbi xelam ak xolam dugal ci yërmande ba mu fees dal koo gis dafa yërëmaat xataa sax ci oto yi bu la nit laalee gaañ la balaa mu la ne baal ma yaa ko naan baal naa la ndax ni nga amee yërmande soo gisee ku yelwaan nga gaaw dugal sa loxo sa poos jéem ko sarax soo gisee koo war a dimbali nga dimbali ko kon nekkoon na weeru yërmande waaye mbokk jullit yi nekkoon na weer woo xam ne weeru njëggal la almaghfira ñépp dañ doon jéggalaate góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp a yaataloon seen xel yaatal seen dënn koo wax mu ne la baal naa la allahu akbar waaw ndax bu fekkoon ne weeru koor weeru alquran la weeru ragal yàlla weeru muñ weeru jihaad ak sa bakkan weeru yërmande weeru njëggal waaye nekkoon na weer al itq min an naar goreel ci safara mbokk jullit yi bu fekkente ne weeru koor dafa boole woon yii yëpp ci benn weer wi waaw ndax weer wi du jeex ñu ne alquran jeex na bu fi kenn jàngati Qur'an bu fi kenn déglooti Qur'an bu fi kenn ragalati yàlla bu kenn muñati bu kenn jihaat ak bakkanam bu kenn ëmbati yërmande bu kenn jéggalati mbokkalam mbokkam bu kenn fexe ba yàlla goreel ko ci safara bu kenn dellu si waat safara bu fekkee ne weeru koor jox na lii lépp ñu dellu si waat ndax waa ji li mu laajoon boppam sànq ma zastafattu min ar ramadan lan laa jële ci weeru koor ndax jële na ci dara tontu bi mooy déedéet kan moo jële ci weeru koor dara mooy ki nga xam ne weer yi bu mu jeexee mu contrôler lii mu xool boppam mu gis ni lii yëpp def na ko wallahi taxawoon naa ci Qur'an wallahi ragal noon naa yàlla muñoon naa jihaatoon naa ak sama bakkan amoon naa yërmande pour xeet yi waaye doon naa jéggale waaye fexe woon naa ba yàlla tabaraka wa taala boole ma ci ñooñu mu ne goreel na leen ci safara ki jëf yi moom moo am dara ci weeru koor waaye ki nga xam ne moom daanaka da doon def grève de la faim grève de la faim mooy lan bañ a lekk bañ a naan am na ñoo xam dañoo bokkoon seen bopp ci ñu doon xiif rek ak mar jëlewuñ ci weeru koor dara ndax yonent moom nu ko wax rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash yàlla nañu yàlla musal xoolal weeru koor ni méttee nga woor ba weer bi jeex yow nekk dañ laa pointé ci ñi nga xam ne dañ doon def grève de la faim yow jële woo ci dara yow xiif ak mar rek lañu la bindal yàlla nañu yàlla musal ixwaani fillah ñaareelu laaj bi mooy hal taxaqaqna at taqwa hal taxaqaqna bit taqwa dëgg-dëgg dan doon war ngir ragal yàlla waaye ragal yàlla googu dëgg-dëgg ndax dëggal nañ ko ci sunu bopp ndax am na su amee nuñ koy xàmmee wa hal taxarrajna min madrasati ramadan bi shahadati almuttaqin ku nekk war ngaa laaj sa bopp ndax stage bi nga doon def formation bi nga doon def 30 jours wala 29 jours formation boobu nga doon def ci école boobu nga doon jàngee école bi tudd Ramadan nga demoon foofu inscrire ñu jël la ngay jàng 29 jours pour boo génnee ñu jox la diplôme taqwa diplôme mu ragal yàlla mbokk yi kan ci ñun moo génn yor yóbbu laa diplôme boobu bi bi stage bi jeexee ñi ci kaw ak ñi ci suuf ñi ci biir kër gi ñi ci mbedd mi ñi ci kaw tali bi ñun ak yéen yëpp kan moo ci génn am diplôme boobu loolu mooy laaj bi su fekkee yow bi nga génnee am nga diplôme réussir nga su fekkee bi nga génnee dañ laa ne yow da ngaa redoubler perte nga stage lañ doon def formation wa hal taxarrajna min madrasati ramadan bi shahadati almuttaqin est ce que bi ñuy génn ñun ñëpp yóbbaale nañ stage boo def en formation boo dem bu formation bi jeexee dañuy rangale ñi doon def formation di leen jox lan diplôme kenn ku nekk ñu lay jox ah waaye ñan la ñuy jox diplôme bi mooy ñi admé waaye ñi adméwul moom ndeysaan dañuy nekk ci kaw tribune bi ñu jagleel leen tàccu tàccu ñuy tàccu seen i mbokk ndeysaan yi nga xam ne ñoom góor góorlu nañ ba am diplôme bi allahu akbar ixwatal iman hal taallamna fihi as-sabra wal musabara ndax biñ nekkee ci weeru koon jàngoon nañ ci muñ formation boobu ñu doon def doon jàng muñ est-ce que muñ googu dëgg-dëgg mu ngi sax ba léegi ndax weeru koor weeru muñ la woon lan nga muñoon wax naa ko sànq jaamu yàlla lan nga muñoon bànneexi bakkan lan nga muñoon ay jafe-jafe waaye nekkul woon lool rek da nga muñ li daganoon ci yow yàlla tere la ko ci ay waxtu yu néew lekk dafa dagan naan dafa daganoon sëy ak sa soxna dafa daganoon yàlla tabaraka wa taala tere la ko ci weeru koor nga taxaw pour bàyyi ko waaw yow bu fekkee dañ laa tere lu dagan nga bàyyi ko kon lu xaraam na su fekkee dañ ñoo tere lu daganoon ci ñun ne ñu fajar ba timis bu leen ko jege ñu bàyyi ñun ñëpp ñu bàyyi wala bàyyi wuñ ñun ñëpp dañoo bàyyi woon waa léegi su fekkente ne nag dañ ñoo tere lu xaraam maadaama bàyyi nga lu dagan kay wax dëgg yàlla kon lu xaraam war ngaa yomb ci yow pour nga bàyyi ko waaye ki perte mooy ki bàyyiwul woon ñaar yëpp bi la yàlla tere bu dagan bi bàyyi woo bi la yàlla tere bu araam bi bàyyi woo ki perte mooy ki bàyyi woon bi dagan bi xeex ak bakkanam bàyyi ko waaye mënta xeex ak bakkanam mu bàyyi lu araam allahu akbar ki moo perte dëgg yow ñu tere la ndékki dafa dagan ñu tere la añ dafa dagan ñu tere la lekk bëccëg dafa dagan ci yow ñu tere la ko woon nga bàyyi weeru koor jeex ñu ne la ni la tere woon lu dagan nga bàyyi bàyyi loolu lu araam nga ni lu araam nag wax dëgg yàlla man mun ma koo bàyyi lu perte nga kon yow bi ngay génn ci école bi yóbbaale woo benn diplôme man faa bokkoon rek ci ñoo xam ne dañuy bind seen tournée ñii dañoo participer woon mais réussiruñu ixwatal iman ndax jàng nañ ci weeru koor muñ ak muñalante hal taxaqaqna hal taallamna fihi sabra wal musaabara ala taa wa anil maasiya dëgg-dëgg ndax jàngoon nañ ci weeru koor muñ ak muñalante ci topp yàlla waaye muñ bàyyil araam ku nekk war ngaa laaj laaj boobu sa bopp ixwaani hal tarabbayna fihi anfusana ala aljihaadi bi anwaa'i est ce que dëgg-dëgg bañ nekkee ci weeru koor yar nañ sunu bopp jàngal nañ sunu bopp tàggat nañ sunu bopp ci jihaad ci ñetti façon yi jihaad ak sa bakkan jihaad ak seytaan jihaad ak dunya est ce que jàng nañ loolu dëgg-dëgg ndax daan nañ seytaan ci weeru koor ñu bëri ci ñun dañ naan waaw waaw daan naa ko waaw bi koor jeexee léegi mbaa seytaane du la daan mbaa tàmbali woo di biddanti fajar jàkk mbaa tàmbali woo di tardeel waxtu yi juróom mbaa tàmbali woo bàyyi quran mbaa tàmbali woo bàyyi say askar li muy tekki bu fekkente ne jàng nga sabr wal musaabara kon ba léegi yaa ngi ci waaye bu fekkente ne keroog bañ ne weer yu feeñ na ci nga tàmbale biddanti jàppal ne yow da ngaa bokk ci ñu doon def grève de la faim ixwani fillah am galabatna al aadat waltaqalid alsayi'a allahu akbar waaw mbaadu ba tey rek mbokk yi aada yi ñooñu noot aada yi ndeysaan am na ñoo xam ne ba léegi aada yi ñoo leen noot ba léegi rëccaguñu fippooguñu daggaguñu seen yi leen aada yi jàpp ba léegi rek aada yaa ngi ñu jàpp allahu akbar lan mooy aada aada yu bon yi nga xam ne moom la ñu yor réew mi aada yu ñaaw mooy weeru koor ba weeru koor la ñuy dem jàkk weeru koor ba weeru koor la jàkk yi di fees ajjuma ba ajjuma la jàkk yi di fees tabaski ak korite la jàkk di fees allahu akbar xoolal keroog bu ñuy julli korite police moo ñëw police lu musul am ci jàkk ji police moo ñëw yor sécurité bi di defar yoon bi parce que nit ñi dañoo bari waaye tisbaar ba ba mu jotee est-ce que police ñëw na takkusaan bi est-ce que police ñëw na timis est-ce que police ñëw na gée est-ce que police ñëw na fajar gi est-ce que police ñëw na ana ñu julli si woon bari de loolu mooy problème mu jullit yi mooy tabaski la jàkk di fees korite juma takk takk takk bu ñuy takk sëy gaa yi xam ne am na bisaab beñe guro kanet ñu daw feesal jàkka ci aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله هل ربينا أنفسنا أم غلبتنا العادات والتقاليد السيئة هل سعينا إلى العمل بأسباب الرحمة والمغفرة والإتق من النار هل وهل وهل مبقي نخ يرنن سنبب ndax tàggat nañ sunu bopp ndax ndax ndax ndax ba léegi aada yi ñooñu noot ba léegi aada yooyu noot kenn du jàng alquran lu dul weeru koor mbaa delluwaatunu waat kenn du tafsir lu dul weeru koor gis nga jàkke yi bi mu commencé weeru koor da ngay gis jàkke bi tafsir foo romb dégg ñu naan qaala allahu taala qaala allahu taala léegi nag jeex na su ngeen génnee déglu leen ndax da ngeen dégg dootu leen dégg loolu rajo yi foo tourné dégg qaala allahu taala arrêté waat nañ aada yeenu noot ay jullit yoo xam ne bala ñuy tafsir quran weeru koor ba weeru koor jullit yooyu seen dund fu muy baaxee jullit yoo xam ne bala ñuy jàng al quran weeru koor ba weeru koor seen dund fan lay baaxee mbokk yi sunu dund du baax c'est parce que li ko war a baaxal moom lan mujjee al quran moo war a nekk ci kanamu jullit ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum loolu la yàlla wax ittabiu la wax topp leen waaw li nga war a topp day nekk sa kanam waaw yow boo jiitoo li nga war a topp nekk sa ginnaaw kon léegi looloo la topp yow toppatoo naka la sunu dund di baaxee kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat ila annuur waaw téere la bu ma la jox yow Muhammad pour nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer léegi nag nit ñi bu ñu nangul topp téere boobu naka la ñuy génne ci lëndëm du ñu yàgg di leen ci ay procès am fekk parce que li ñu war a baaxal moom lañ bàyyi ginnaaw aada yeenu noot aada yi moonu noot ba mënunoo nekk ay jullit te aada yi aada yuy bon la yu ñaaw hal sa ayna ila al amal bi asbaabi rahma est ce que dox nañ jëm ci yoon woo xam ne buñ ci jaaree yàlla yërëm nu yàlla jéggal ñu yàlla goreel ñu ci safara barki démb bi ñu waree ba léegi yéen a ngi soirée yi commencé na ce soir au cosaan ce soir au réveil au yëngu leen ñaata soirée ngeen dégg soirée yi commencé waat na te ñooñu yoon soirée yëpp dañ doon woor animation yi commencé waat na ci rajo yi film yu bon yi commencé waat na ci télé yi ah sabar yi commencé waat na ci mbedd yi mbapat yi commencé waat na ci dëkk bi te ñooñu ñëpp dañoo wooroon nee nañu ndeysaan nee nañ dañoo wooroon la ilaha illa allah est ce que ñooñu woor nañu jàpp nañ ne weeru yàlla moom boo koy jaamu weeru koor rek ngay xaar wala ajjuma wala tabaski wala korite nga sangu ba set sol say rëb rafet dem jàkk ñëwaat boo paree nga simmi nekkaat ci la la neex bu nax suñu bopp yàlla dafa joxoñoon yonent bi baaraam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wa'bud la ko wax wa'bud rabbak jaamul yàlla ba dee fekk la ci jaamul yàlla ba dee fekk la ci am saxaaba boo xam ne du nelaw guddi du tëdd ci lal guddi doom ñu ne ko bàyyi lu tax doo tëdd ci lal mu ne damay bañ malakal mawti bett ma ku la malakal mawti fekk soirée ngay fecc ah woor ba weeru jeex koor jeex li gars yi ne salafu saalax bu ñu wooroon ba koor jeex danañ toog juróom benn weer di jooy ndax yàlla nangul leen ñun ndeysaan kenn waxalaguñ la nangul nañ la nanguluñ la nga dellu ci soirée yi di fecc benn mag bu baax dafa gis ay nit yoo xam ne dañoo war ba koor jeex ñu tëgg soirée di fecc boroom xam-xam nag ñëpp ko xam ci quartier bi mu waaxu ba ci soirée bi mu fëgg bunt bi ñu ubbi ñu ne eh cheikh diw la lu mu fiy def ah mu ngi nii ci bunt bi taxaw de waaw lu mu bëgg dama bëgg waxtaan ak yéen mu dugg léegi nag mu ne abal leen ma rajo bi jox ko mu ne ndax yéen wooroon ngeen gars yi ne ah ah ñu ñëpp woor nañ kay ah lu tax duñu woor sénégalais la miñ rek ñu ñëpp wooroon nañ ah tamit yàlla di la digle woor duñu woor ñu ñëpp woor nañ a wooroon ngeen ñu ne waaw waaw ñaareel laaj ndax yàlla nangul na leen ah wóorun de wax dëgg yàlla wóorun wóorun na mu ne waaw bu fekkee yàlla nangul na leen ku yàlla nangul loo war a def du sant ne waaw mu ne ndax lii sant la alaga sukk su fekkee yàlla nangulu leen lu waroon du jooy du jéggalu du tuub waaye féttéer lu maa tey organiser soirée te loolu nag mooy problème Sénégal kañ la ñuy baax kañ la ñuy taxaw ci santaane yàlla kañ la ñuy nekk ay jullit su fekkee bu àjjuma jotee ñun ñëpp ñu normal joxe ngeen dem juma xel ak juma alhamdulilah juma juma booy booy dem juma te ñëwaat ah boo ñëwee juma nekkaat ci li la neex bu weeru koor jone nga ne ah koor la koor la su tabaski kañ la ñuy baax ñetti fan tabaski korit juma ñetti yi loolu dafa mun a baaxal nit soo bëggee baax waabud rabbak hatta yaatiyaka al yaqin da ngay lang ci 24 heures bi ci sa borom ba dee fekk la ci loolu loolu mooy tax nga baax mbokk yi ci yàlla hal wa hal wa hal ay laaj yu dul jeex la ndax ndax ndax ndax asilatun kasira wa xawaatir abiida tatadaa ala qalbi kulli muslim sadiq yasal nafsa wa yujibuha bisidqin wa saraxa ixwani fi llah ay laaj la yu bëree bëri yoo xam ne day tàbbi ci sa xol nga koy laaj ci sa bopp ginnaaw ba mu duggee ci sa xol yow jullit bu dëggu nga xool bi weeru koor jeexee léegi ndax tarxisoo ndax seytaane fëkku la ndax iblis yeewaatul encore sa tànk buum ne la sa waay dama laa mayoon rek de weeru koor rek laa la mayoon nag batma weeru koor jeex na kenn ku nekk ñun waroon na yor jaasi ci loxoom bu seytaane sànnee buum bi ci tànkam bu ko takkaat mu dagg buum yi ne ko déedéet am naa liberté ila rabbi ila rabbi ila rabbi jëm naa ci sama borom ndax yàlla lu mu wax fa firru ila allah daal dana daw leen de ku bëgg dem ci yàlla da ngay daw fa firru ila allah daw leen dem ci yàlla wallahi ku dawul doo dem seytaane dana la jàpp adduna dina la jàpp bakkan dina la jàpp boo rëccul déema daw dem ci yàlla ku bëgg a dem ci yàlla doo dox doo temp doo waaxu doo raam ku bëgg a dem ci yàlla da ngay daw ndax ki la topp ma la ëpp doole muy seytaan moo tax yàlla mu ne daw leen xëlu leen la wax fa firru kalima bi xam ngeen lu muy tekk ci arab daw leen xëlu leen jëm ci yàlla bu xëluwul doo dem dañu toll ci jamono boobu ku rëccul bu la iblis jàppee safara la la jëmee mbokk yi ay laaj la yu dul jeex ay laaj yoo xam ne ku ne ci ñun war nga koo laaj sa bopp rawatina nag jullit bu dëggu jullit bu dëggu jullit bu bëgg a dugg aljanna jullit bu bëgg a dugg firdaws jullit boo xam ne da ngaa bëgg ëllëg bu sayyiduna muhammad toogee nga toog ci wetam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullit boo xam ne da ngaa bëgg a bokk ci nabiyin siddiqin suhada wa saalihin yàlla lan la wax wa xasuna ulaika rafiqa yàlla mu ne bu fekkee xarit rek ñii doy nañ xarit ku am xarit yi doy na kon na xarit yooyu ku leen bëgg a am mooy doo fi nekk di raam doo fi nekk di dox doo nekk di waaxu lan ngay def mooy da ngay daw dem ci yàlla ku dawul doo egg ixwat al iman ay laaj la yoo xam ne du jeex maaza stafattu min ramadan lan laa jële ci weeru koor ndax nekkoon na madrasa imaniya innahu mahattatun ruuxiya li tatazawadu minhu li baqiyati l aam allahu akbar da nga doon chargé batterie bi batterie bi nga doon chargé iman bi nga doon chargé tawhid bi nga doon chargé chargé nga ko fanweeri fan ba nga fees dal ak iman waaw fanweeri fan ngay chargé fanweeri fan ngay chargé sa batterie pour daw dem ci yàlla bi batterie bi feesee ñu ne la dawal ca suba sa rek nga vidde batterie bi mu plat ci benn soirée ba deseetoo dara ci iman nga commencé biddanti fajar suñ ne asalaatu xayru minan naw fi nga tëdd nga naan ki ki noot yaa ngi koy tontu ci sa xel naan ko laa annawmu xayrun min alsalaa allahu akbar wala fanweeri fan ngay sol sa batterie ngay sol ngëm yàlla gi fanweeri fan nga dëgër benn fan iblis daaneel la benn fan benn fajar ba dugul sax fan maanaam biñ nee weeri feeñ na keroog julli woogee sama gars yi weeri feeñ na de julli woogee keroog yow kay amagul sax fan nga daanu la ilaha illa allah est-ce que kon yow soloon nga wala sa batterie bi moo plat ay way batterie bi moo yàqu xol bi moo yàqu xol bi moo mënta résister suñu xol yee yàqu kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw asadu qaswa lu tax ndax wa inna min al hijaara am na ci xeer yoo xam ne لما يتحبط دي واتشك دانو من خشية الله وإن منها لما يخرج منه الماء am na ci yoo xam ne ndox dina ci génn waaye suñu xol yi nag moom dafa dee summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara xol yi ñoo dee xol ya wow ala inna fi ljasadi mudga ida salaha salaha aljasad kullu wa ida fasada fasada aljasad kullu ñu ne yonent bi mooy lan mu ne ala wa hiya alqalb xol ya yàqu réew mi julli nii seen xol yi ñoo yàqu wallahi ci événement yi rek nga koy xam événement yi Palestine nekkee doo gis sax jullit bu ko naqarlu wala jullit bu xool image télé rongoñum tuuru abadan parce que xol yi ñoo dee wallahi alazim dañu laaj borom xam-xam bu mag bi Ibrahim bun Adham ñu ne ko waaw Ibrahim bun Adham yàlla dana woon ñaan leen ma may leen ñuy ñaan léegi dara deful mu ne parce que xol yee dee ci fukki mbir xol yi dañoo dee xol yee maral xol yee d'accord loolu moo tax jullit yi mënuñ ci résister sax benn fan pour jaamu yàlla mënatuñ ko koo gis mu ngi ci ay caaxaan koo gis mu ngi ci tappale koo gis mu ngi ci njublan fan lañ jëm école weeru koor madrasa la woon madrasa madrasa imaniya weer la woo xam ne dañoo ñëwoon pour jàng nu ñuy fexe ba sunu ngëm yokk waaye maxaqatu ruuxee sunu ruux pour sunu ruux kawe ñu jóge ci kaw suuf jëm ci sunu borom parce que loolu la doomu aadama ñaar la ko yàlla binde mooy ruux ak suuf waaye suuf si da ngaa war a wax fexe nga faxasu sa ruux sell nga dem ci borom bi tabaraka wa taala nga sell nga sell suuf si dañ waaye ba léegi ñu ngi takk suuf ba léegi ñu ngi ci kaw suuf mu ñu naaw dem ci kaw borom bi ci pays yu sell yi mbokk yi weeru koor dafa ñëwoon pour ñu dollee ko tazwid pour ñu dollee ko pour lan li baqiyatil am ba at bii du ñëwaat weeru koor dafa ñëwoon pour chargé ñu moo tax yonente bi ne ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma weeru koor ba weeru koor day tax yàlla jéggal la sa bakkaar léegi weer nañ weeru koor weeru koor gi jeex na bakkaar yaa ngi fi weeru koor bi la ñëwaat bakkaar yaa ngi fi kañ la ñu yàlla di jéggal kañ fekkee weeru koor dem na ba mënatul dindi suñu bakkaar woor nga ba weer bu jeex suba ñu gis la nga tëgg soirée ñu gisaa la nga commencé dabalaa sa bopp bi commencé kiris karas commencé waat bokkaale commencé waat commencé waat dellu ci cigarette commencé waat dellu ci dellu ci dellu ci dellu kañ ngay baax kañ su la weeru koor mënulul dara parce que ajjuma ba ajjuma la yonent bi waxoon ajjuma ba ajjuma day dindi bàkkaar léegi loolu mënulul dara yonent bi ne julli salaatu wa salawaatul xams la waxoon julli juróom day dindi bàkkaar léegi loolu mënatul dara yonent bi ne kon boog ajjuma ba ajjuma loolu mënatul dara weeru koor ba weeru koor léegi loolu mënatul dara fu ñu jëm mooy kon dañ ko nar a deewaale te ku deewaale ay bàkkaar dugg bàmmeel dañ la mbugal mbugal moo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law najaa ahadun min dammati alqabr la najaa minhu saad ibnu muaz su kenn ci yéen doon rëcc ci mbugalu mbàmmeel saad ibnu muaz dina ci rëcc xam ngeen kan mooy saad mooy ki nga xam ne bi mu faatoo arsul rahman fi yàlla nekk dafa yëngatu ihtazal ars ala mawti saad saad faatu ars yëngatu ñu yenu ars ne yàlla lii lan la mu ne leen saad ibnu muaz moo faatu te biñ ko dugalee ci bàmmeel bàmmeel bi da koo tànc bàmmeel bi da koo tànc biñ ko dugalee kon nañ leen ragal yàlla nañ leen sax ci jaamu yàlla nañ leen góorgóorlu ci sunu diine nañ leen nekk ay jullit bañ a nekkantu ay jullit nañ leen nekk jullit nekk jullit ak nekkantu jullit du benn اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله